dama ni lu des wax bi wax nunu ko ba pare wax nunu waxaat lu des mooy jëf bi ma Macky mi ngi nuy song lu des mooy ñu song ko lu des mooy ñu xeex ko lu des mooy ñu daaneel ko lu des mooy ñu sauver Sénégal et loolu mi ngi commencé mi commencé na ba paré li wan na ko mais dana continuer suba defuñu sunu mobilisation parce que jour assemblée nationale nous nous bëgg Sénégal yop nek fa nous nous bëgg mobilisation continuer Nous nous bëgg xalé yi nous ñu bëgg mag ñi du ñu bëgg Wa Pikine Wa Guédiawaye Wa banlieue wa Dakar Wa Sénégal yop fekke ko wa Sénégal yëpp mobilisé ni li du si dal il faut empêcher il faut empêcher Macky Sall de faire ses forfaitures. Et nous, le pouvons dans la mobilisation et nous allons le faire. Parce que mon Louis def si nous nous ba nous pas nous nous le jour de la manifestation à l'Assemblée nationale et après après tous les jours tous les jours se mobiliser pour que ça n'aille si ça n'aille parce qu'il y a deux le Sénégal y a Sénégal nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, dañu xeex dañu mobilisé wu ragalu nu dara moom ragalu nu mënu nu xoxatal mënu nu diidal dañu mobilisé soxla loolu mu ni sànni seen gaz wala ay bomb na lu mu bëgg na ko def mais on sera là on sera debout pour le Sénégal merci yéen